ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak euh, yéen si rajo Rewmi FM euh, émission gox bi niki ki tey euh, dimanche gi ñuy dalal ki nga xam ni moom moo di maire bu commune bu Thiaroye-sur-Mer mun nañ ko waxee tamit maître El du Ndiaye ràññee nañ ko itam fi nga xam ne nag moom moo di bi monsieur le maire ñun am nañ mbégte lool am la tey gan fii ci rajo Rewmi FM waxtaanee gox bi nga xam ne moo di Thiaroye-sur-Mer voilà Mbemba maa ngi lay euh, nuyu bu baax di la gërëm. di la sant di la remercier par rapport ak euh, invitation bi. di profito ci moment bi pour nuyu sa. ñi nga xamante ni ñoom ñoo déglu rajo bi ak euh, tous les sénégalais particulièrement ñi nga xamante ni ñoo dëkk sama commune thiaroye sur li ñu lay faral di gis ci média yi bariwul lan la da nga El Mamadou Ndiaye ba nekkee jëlee fonction mairie bi. Euh, dafa diis wala nu mu demee noonu. bon non en fait euh, li ko waral rek mooy que liggéey des fois daf dul ànd ak wax ju bëri moo tax bi ñu bon xam na ñu sama jaay mais surtout si sunu liggéey. yàlla def nag li ñu gënoon a fësal mooy yenn procès yi nga xamante ni dañ ci nekkoon muy procès médiatique je pense que ne procès yooyu ba ñu jeexee dañu delluwaat suñu liggéey yàlla jox ñu une responsabilité si politique bi nga xamante ni ñoo si nekk donc du coup on se dit que ne il faudrait que ñu concentrer aussi à la fois suñu liggéey avocat ak liggéeyu maire bi et le moment venu on fera effectivement face ak ñi nga xamante ni ñoo ñu jox confiance boobu. Euh, wax nga ko euh, maitre nga avocat nga euh, tey naka ngay doxalee liggéeyu avocat ak mbiru mairie bi. waaw dinaa wax ne nekk na loo xamante ni lu yombul la. parce que doon avocat rek dafa nekk loo xamante ni lu diis la en terme de volume de travail et je dis toujours souvent ñi may liggéeyal que ne avant maa nekk maire dama doon des sama bureau ba vingt vingt deux heures donc boo ci naree dolli mairie bi donc euh, gis nga li muy joxe mais on se dit que ne rek euh, dañu ñëw ci àdduna pour liggéey. Mhm. moo tax euh, lu charge bi diis diis on se donnera les moyens pour satisfaire li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci ñun. Mhm. calendrier la wala am na jour yi nga xam ni moom ngay faral di taamu di dem tribunal wala am na yoo xam ne da ngay des ci mairie ba. waaw en fait euh, organisation la rek organisation la on se dit ne. peut-être dañuy jël euh, journée yoo xamante ni bu ñu amul audience dañuy dem passer toute la journée à la mairie et quand je parle de passer toute la journée je dis que ne dañ fay xëy peut-être neuf heures dix heures dañ fay toog ba minuit passé on essaie de le faire toutes les semaines ñu jël benn wala ñaari bis def ko li si des ñu consacrer ko sunu travail yu cabinet tant entendu que ne à chaque fois que ñu teel wàcc si sunu liggéey dañuy dem euh, dem ci mairie bi ok monsieur maire euh, daanaka bii mooy sept wala huit mois. Mhm. Euh, bañ la falee ci boppu euh, mairie boobu ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer. Mhm. tey bëggoon nañ xam liggéey gi fan la toll ndax ab programme nga woote ñu daal di fal la ci programme bi ni mel tey ñu dem ba ci juróom benn weer wala juróom ñetti weer yi nga xam ni yaa ngi doxal. fan la liggéey bi toll. voilà donc euh, comme ni nga ko waxee dañu dem euh, ci ci campagne électorale ak euh, une pro benn programme moi je toujours pendant la campagne que ñun sax yoruñu programme li ñu yor c'est un projet. parce que dañu saytu jàngat caaro yi xool jafe-jafe indi ci une proposition de solution boo xamante ni mën na weesu sax sunu mandat moo tax on préfère toujours dire que dañu am li nga xamante ni moom mooy projet politique ñu ngi jël fonction au mois de mars wala fin février boobaak léegi je pense que ne mu ngi toll ci juróom wala juróom benn weer et dañuy sant yàlla parce que li nga xamante ni euh, diglante woon nañ ko ak askan wi yàlla def na tey mën naa ne ñu ngi ci yoon bi euh, li ci jiitu nag euh, mooy ñun yàlla dafa def bi ñu ñëwee ci municipalité bi le premier constat bi nga xamante ni def nañu ko mooy que ne il fallait pour mu am efficacité par rapport ak sunu liggéey ñu mettre en place une administration qui répond aux normes. xalaa amu fa woon. bon je dirais pas que amu fa woon mais li ñu gis li ñu fa fekk je pense que ne mënuñu woon liggéey ci base boobu parce que man yàlla dafa def ma nekk socialiste ma gëm ne li jiitu mooy organisation ak méthode et cette organisation et cette métode dafa war a feeñ ci ni nga xamante ni noonu lañ tëralee administration moo tax defaraat nañ ko jubbanti nañ ko jooyanti nañ ko ma nekkul mairie da ngay gis que ne du ñu sentir sama absence loolu dañ ciy sant yàlla bi ñu paree si loolu li nga xamante ni moo doon pré beneen défi bi mooy que mënuñu am résultat bi ñu bëgg tant ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey amuñu les capacité wala renforcer ñu sew ñu seen ay capacité ma jël euh, initiative organiser séminaire de renforcement de capacité ñun ñu dem ñu jàngalaat ñu lan mooy décentralisation ñu mettre suñu bopp à niveau ba tax na boobaak léegi ñu ngi dem ci biir liggéey bi ñun on s'est dit que le premier li nga xamante ni waroon nañ ko def mooy sunu programme dañ ko tënkoon si ñetti axe bi si hmm. njëkk monsieur le maire nga baal balaa ngay ñëw ci programme bi kon ce qui veut dire que yow da nga ñëw fekk jël mairie ba kon suñ la déggee mooy amul woon jafe amul defoo santaane woo audit da nga ñëw rek continuer wayal loolu liggéey bi. waaw du ma ne du ma ne xam nga audit ñaari façon la mën nga dem jël euh, ku nekk une personne de l'extérieur mu defal la audit. mën nga ci biir liggéey bi ngay ngay ngay saytu la nga xamante ni moom nga fa fekk. parce que bi ñu ñëwee ñun dañu ñu jox euh, des documents de passation de service. et sur la base de l'existant on a cherché à comprendre lan ak lan moo fa nekkoon. et aujourd'hui on comprend parfaitement li nga xamante ni moom lañ fa fekk de telle sorte que ne moi j'ai pas besoin dem jëli une personne extérieure muy ñëw di ma auditer parce que man mii sax am naa ay aptitude ay capacité pour faire yenn audit yi. donc euh, ma continuer ci li ma doon wax par mhm. rapport ak sunu programme parce que bilan bi suñ koy def dañ koy mesurer en fonction li nga xamante ni moom lañ digoon askan wi on avait Euh, proposer un programme boo xamante ni sur trois axes la le capital humain le cadre de vie mais également on se disait qu'il fallait à Thiaroye bâtir une économie locale okay. Mhm. bi ñu ñëwee on s'est dit que ne am nañu defi côté sécurité et, et on se sécurité peut-être que lenn li état la mais dafa am loo xamante ni c'est élémentaire mooy l'éclairage public et ñun bu ñu ñëw dañuy tomber nag dëkk bi lëndëm trop si la ñu jël def li nga xamante ni moom mooy opération tàllamp yi def nañ diagnostic état des lieux xool commune bi fi nga xamante ni leerul et on a essayé de pallier à ça donc euh, nañu bu baax éclairage public et je pense que aujourd'hui le processus mu ngi continuer en cours euh, beneen bi gis nañ que ne dëkk bi dafa nekkoon dëkk boo xamante ni dafa encombré woon côté cadre de vie et ñu jël suñu initiative surtout côté route nationale bi bien que foofu ñi nga xamante ni ñoo ko moom ñoo fa war a def. ci borom pont bi. justement mooy AGEROUTE. et donc euh, mënuñu xaar parce que on se dit que ne lu ci mënti am rek yi lay daanu si la ñu jël initiative def opération de désencombrement dindi bépp loo xamante ne en tout cas. warul coow loolu itam ah. <laughs> effectivement coow li bari woon na ne nañ sax ñenn ñi sax. Mm-hmm. ne nañ ñoom euh, somation yi ñëwul ci waxtoom ainsi de suite euh, d'accord uñ ci mbir mi est-ce que diisoo amoon na ak la population. waaw loolu loolu pour man euh, ñi koy wax peut-être dañuy wax rek pour wax parce que. man defuma bay dem xëy rek fekk nit ma jëlee ko fa li ma njëkk def mooy dama yónnee ay nit ñu waxtaan ak eh, ñi nga xamante ni jàpp nañ ne war nañoo jóg am na bi ko defee ñoo xamante ni volontairement dañu jóg eh, ñi nga xamante ni jóguñu on leur a donné des sommations yoo xamante ni délai bi dem na ba toll ci un mois un mois yi nag bi jeexee ci la ñu jël suñu ay disposition lépp li ñu fa waroon a jële ñu jële ko mu des ñu nag eh, ñu def suivi on a mis en place benn brigade mobile boo xamante ni moo doon assurer suivi boobu tey jii am na ay rëkk parce que gis nañ ne petit à petit nit ñu ngi ñëwaat. Hmm. mais c'est pas parce que dañ leen bàyyi mais aujourd'hui dañu am benn contrainte mooy que ne amuñu espace boo xamante ni ñun dañ koy def fourrière dañu demoon ville de Pikine mu àbb ñu tey fourrière boobu moo moo nekk euh, loo xamante ni. libéré mais jaroon na kon tey euh, si jar na ko parce que gis nga il faudrait que lum ñu jaral man de toute façon solution bi moo doon utiliser. utiliser espace ville de Pikine aujourd'hui cet espace n'est pas totalement disponible maa ngi ut beneen pexe l'essentiel mooy que sama objectif mooy il faut que Thiaroye désencombrement bi dem jusqu'au bu euh, bi ñu ñëwee tamit defi beneen bi nga xamante ni mu ngi ñu doon xaar mooy inondation ku dund caaroy at yi nga xamante ni moom la ñu weesu depuis 2005 xam nga ne inondation bu ñëwee daf doon metti trop nit ñi doon ñu xaar foofu ñu ñëw dem ak benn stratégie. mooy ban def euh, li nga xamante ni moom mooy jàngat jël de technicien ñoo xamante ni seen xam-xam dañ ci màcc ne leen defal leen ñu des études des propositions si biir études yooyu proposition mu am de pros position de solution bi si njëkk mooy waroon nañ def curage canaux yi bien que du ñun ñoo ko war def totalement ànd nañ ci ak ville de Pikine ànd nañ ci ak ONAS ak euh, mairie bi deuxième bi mooy ñu def reprofilage mooy joyantiwaat ndox mi su ñëwee mën a dem ñetteel bi mooy ñu ut ay moto pompe pour que point bas bu ci nekk ñu teg fa moto pompe yàlla def man bi ma ñëwee maa ngi fekk benn moto pompe rek laa fekk mu baax. ci biir ci biir commune bi donc tey dañuy sant yàlla am nañu quinze moto pompe yoo xamante ni mu ngi ci terrain bi en plus de ça. Mhm. j'ai recruté ay doomu caaro yi def leen ñu nekk équipe mobile boo xamante ni ñoom ñooy nekk ci terrain bi di jàppale population bi par rapport ak loolu. def nañ fi également li nga xamante ni mooy. foofu balaa ngaa jàll xam nga ni mhm. nawet lañ nekk. tey lan mooy le point situation commune bi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu inondation yi lan la wala jafe amu fa. du ma ne jafe-jafe amu fa mais lu ci nekk da nga koy mesurer par rapport ak existant ba fa amoon ñun Caaroy lañ dëkk année yi passé fa lañ doon nekk dañuy wax que ne bu tawee première taw rek jafe-jafe yi day tàmbali ba nawet bi jeex. Mhm. tey dañuy sant yàlla ñu ngi dégg gox yu bëri. ñu ngi jànkonteel yenn difficulté yi mais malheureusement à ah, heureusement à Thiaroye bu tawee dina taa mais Euh, quelque temps après dafay demal boppam. te li nga xamante ne des na fa sunu motopompe na ko évacuer et puis citerne yi ñuy. teg kon yéen soxla woo leen plan Orsec. non du ma ne soxlaw ñu plan Orsec parce que ce sera toujours en plus mais def nañu benn plan de riposte boo xamante ni. oyofal na inondation yi par rapport ak année yi nga xamante ni moom lañ passé oyofal na inondation yi waa Caaroy par rapport ak communes yi nga xamante ni moo ñu wër hmm. donc dañuy sant yàlla di xeeb lu ñu ci mën a dolli jàppale ñu jàppale ñu ko si ma continuer def nañu tamit euh, li nga xamante ni moom mooy ay opération de nettoyage journée de nettoyage en relation ak ñu nekk si quartier yi ak opération de reboisement hmm. parce que dafa bokkoon sunu programme li nga xamante ni moom mooy cadre de vie Euh, toujours si cap euh, si li nga xamante ni moom mooy le capital humain tey initier nañu formation en informatique pour jeunes yi nekk Thiaroye bi ñu toogee ba léegi chaque mois ñu ngi def des formations à l'endroit des jeunes en relation ak benn structure boo xamante ni dafa spécialisé aussi loolu beneen bi mooy euh, euh, ASC yi nga xamante ni ñu ngi ci commune bi. Uh-huh. démb rek ñoom ñu ngi may fàttali ne dañuy toog dañ doon toog ba nawetaan doog a jeex. yenn équipe yi toog ñu doog a jot seen subvention bu cent cinquante mille francs ñun bi ñu ñëwee ASC yëpp dañu leen euh, di yokkal seen subvention à euh, à cent cinquante euh, à deux cent cinquante la zone ñu jëlee ko deux cent cinquante mille yóbbu ko cinq cent mille francs et ensuite on a pris en charge li nga xamante ni moom mooy final bi nga xamante ni mooy bu deux mille vingt et war a jëlaat en charge finale deux mille vingt deux pour dire encore une fois sur ce point on a fait des efforts considérables euh, par rapport ak loolu am na ay élèves wala ay étudiants yoo xamante ni Caaroy lañ dëkk ñun dañu leen jël en charge di leen fayal seen ay euh, seen ay études mm-hmm. euh, beneen bi mooy. ku wax mairie tamit di nga wax social. te yàlla dafa def euh, bi ñu ñëwee léegi active événement yi fi jaar yëpp te ñu xam ne waa yi dañuy soxla ku leen jàppale ñun am nañ ci taxawaay muy koor di joxe nañu joxe nañu ay suukaru koor. joxe nañu loolu yëpp ci euh, kopparu commune bi. ci kopparu commune bi joxe nañu bi ñu demee tabaski tamit euh, on a dit cette fois-ci il fallait que ñu ñu sa caaro yëpp sentir la municipalité. on s'est dit que ni ren de lu fi mësta am dinañ ko def mooy bépp imam buy jiite dinañ la jëndal xar yàlla def plus de dix-huit euh, imam jëndal nañ leen seen xaru tabaski yemuñu ci on a pris cinq cent nécessité ci commune bi jàppale leen ci tabaski ji ni ñu ko defee ci loolu lañ ko defee ci pàcc bi et aujourd'hui loolu tamit moom mooy continuer waaw mm-hmm. ah, monsieur le maire tey lan mooy projet bi nga xam ne tey bii mën nga jàpp ni ci lii nga nekk tey moom mooy priorité bu njëkk ci biir Caaroy googule Caaroy sur mer ba lan mooy projet bu njëkk bi nga xam ni priorité la wala tout est priorité <laughs> moo tax may ree parce que toutes mes interventions bu ñu ma laajee priorité Caaroy je dis à Caaroy tout est prioritaire parce que dañu nekk dëkk boo xamante ni franchement euh, gëm nañ ne fi nga xamante ni fi lañ toll waroon nañ ko weesu moo tax bu ñuy wax priorité lépp priorité la mais investissement côté infrastructure mhm. dafa nekk loo xamante ni Caaroy soxla na ko ci dëkk la boo xamante ni amul voirie dëkk la boo xamante ni li nga xamante ni moo fa nekk je vous donne l'exemple du centre d'état civil. Mhm. parce que mën na avocat la xam naa état civil lan lay tekki ci ci municipalité ak importance ban la am si si li nga xamante ni moom mooy état. Mhm. donc yàlla def ñu am euh, état civil boo xam ne dafa nekk dans un état de délabrement très très avancé de telle sorte que ne bu tawee sax euh, ñoom dañuy nekk ci biir ndox mi. moi par rapport à ça je me suis dit que ne lii urgence la lii priorité la xaar mu mhm. tax li ma def par rapport ak foofu mooy dama réfectionner euh, aménager réaménager investir au niveau du foyer des jeunes benn local ma délocaliser li nga xamante ni moom mooy état civil bi yemuma si j'ai mis en place un projet de 61 millions pour raser complètement l'état civil ñu ñu construiraat ko et le budget est en place procédure yi pour passer marché bi mu ngi en place et je pense que les travaux von bientôt démarrer dans un ou deux mois okay. et naki lool tamit ñu jàpp que ne école 1 pratiquement bokk na si école yi njëkk Dakar parce que 1927 la woon mhm. tey école boobu boo fa duggee da rus ñun on a euh, l'initiative réfectionné ko complètement on a mis en place un budget de vingt quatre millions maa ngi ci procédure passation marché et je pense que ne dans un ou deux mois les travaux vont démarrer pour ñu réfectionné ko complètement wow. donc loolu ay urgence la loolu ay priorité la ni mu nekkee ci loolu la nekkee ci yeneen euh, lu ci mel ni ay aire de jeu mhm. aujourd'hui on est en, en négociation ak des partenaires pour defar à Thiaroye des r de jeu ok aire de jeu yi ndax am euh, financement propre lay doon wala ak euh, li nga xam ne partenariat lay doon diggante euh, mairie bi ak yeneen partenaires yi nga xam ne parce que itam loolu euh, ndaw yi ñu ci bari dañ koy soxla. tout à fait tout à fait waaw euh, ñun nag aujourd'hui moom dama ne ñu ngi discuter ak des partenaires. pour xool naka lañ koy defee en tout état de cause si discussion yooyu dina génn ay proposition maintenant moi je vais apprécier moment venu def li nga xamante ni moom mooy bilan coût avantage def ko ak un partenaire public privé ban avantage la si population bi di am wala ñun ñu jël ko en ban lañ ci am. li am solo mooy commune bi dina ko attan. bon commune bi dina ko attan moo xam nga xam nga projet boo gis rek. Euh, montage la ah. projet boo gis rek euh, yow yaa koy euh, analyser nga inscrire ko peut-être dans la durée et je dii dis que ne buñ ci farloo bëgg ko def incha allah je pense que ne commune bi àttan na yenn RDG yenn investissement yi li ci des nag buñ ko mënul on sera obligé de le faire avec des privés et je pense que négociation yooyu lañ nekk pour le moment. Mhm. ñu wax ci wàllum paj mhm. euh, tey ci diwaanu Thiaroye. Mhm. Euh, bien vrai que pàcc lu am solo la. Euh, tey ñaata post de wala centre de santé yi nga xam ne tey moom moo fa nekk. xam nga itam léeg-léeg génn di dem di faju ji. des dafay xaw métti ci askan wi nga xam ñoom ñooy dund loolu. Mhm. mais est-ce que jumtuwaay bu war bu ñoŋ bu amee ci commune ba. Mhm. dañ soxla génn. waaw euh, du ñu soxla génn te loolu ñun dañu ko yàgg a jooy moo dañu gëm ne tey. Euh, caaro yi fi mu toll si côté santé war na ko wees ñu ngi am euh, ñetti poste de santé ñaar la woon ak benn case de santé heureusement que ñun bi ñu ñëwee fekk nañ case bi ñu refectionné ko ba tey maa ngi ci ay démarches pour que ñu rendre ko opérationnel parce que defar nañ ko mais dañ ko tëj booba ak léegi semaine bii rek rencontre naa ki nga xamante ne mooy chef de district mbaaw on a discuté on a pris ensemble les dispositions pour mën a rendre loolu nga xamante ni moom mooy poste bi opérationnel et je pense que ne dinañ ko tijji. Euh, yemuñu foofu ñun euh, def nañ état des lieux poste de santé yëpp et on est en discussion ak des partenaires privés. Euh, surtout lu jëm ci wàllu poste de santé Thiaroye Azur bi donc ba tombe nañ d'accord daal euh, pour euh, ñu jëlal ñu en charge li nga xamante ni mooy réflexion bi et je me dis boobaak léegi mu ngi commencé jël temps mais je dis que ne bu ñu demee ba fin d' année fekk euh, ñoom defuñ ko man dinaa ko inscrire suñu budget e je vais investir à hauteur de cinquante millions année bii di ñëw pour ñu réflexionner poste de santé boobu. et puis on essaie de voir dans quelle mesure on pourra effectivement relever le plateau médical. parce dem na am solo la quand dem naa si centre de santé poste de santé. fréquentation bi taux bi voilà voilà vu que ne. ne en tout cas li fa nekk daal laaj na ñu amaat ci taxawaay maa ngi ci liggéey ak sama service yi et on essaie de voir yenn solution lañ ci mën a am ci euh, budget yi di ñëw parce que yàlla dafa def budget bi nga xamante ni ñu ngi koy dérouler nekkul budget boo xamante ni sunu budget la. dañ ko fi fekk dañ ko fi fekk donc dañuy dérouler mais incha allah on va faire des efforts beneen effort bi nga xamante ni def nañ ko déjà parce que man euh, je suis très sensible par rapport à la situation sociale des gens. Mm-hmm. santé yi ay personnels yoo xamante ni à la limite ñu si bëri bénévolat la ñuy def moi je peux pas considérer ay nit di xëy di lundi au samedi pendant trente jours weer dee ñu ne leen ay bénévole nga donc on fait des efforts maintenant pour régulariser seen situation am na ñoo xamante ni jot nañ leen. ils sont au nombre combien. bon je pense que nombre bi je l'ai pas en tête mais dites-vous que dans deux postes de santé yi fa nekk yëpp euh, pratiquement moitié personnel bi ils sont dans cette situation. Okay. donc on essaie de remédier à ça. Hmm. rencontrer naa également. la ki nga xamante ni moo jiite l'hôpital psychiatrique de Thiaroye euh, de Thiaroye mhm. donc euh, si sunu ay discussion li ñu ci bëgg a def mooy dañu am un projet commun pour que ñu multiplier offre yi au lieu que muy nekk hôpital boo xam ne psychiatrie rek lañ fay def donc mu am yeneen service comme ça yi dina mën a am li nga xamante ne mooy hôpital de niveau trois donc foofu moom am na lu mu ciy dox man am naa lu mu ciy dox maa ngi def li nga xamante ni moom mooy portage l'essentiel mooy que à l'arrivée Thiaroye puisse bénéficier d'une structure sanitaire de de de niveau trois. ok mais est-ce que subvention. parce que mm-hmm. itam euh, euh, bu fajukaay yu bari dañ lan yi ñoom mairie bi du koy joxe à temps. Mhm. dafa yéex ba tax na jafe-jafe yu bari da dañuy kii mairie yi dem dañ naan euh, acte trois de la décentralisation ñooy génne xaalis di fay gàllankoor yooyu yëpp nag ngeen koy dundee ci mairie yi. waaw gàllankoor yu metti la parce que li ma ci mën a wax rek mooy fi nga xamante ni fa laa ñu ngi ñu ngi à quatre mois fin exercice budgétaire bi. ba léegi li nga xamante ni moom mooy fonds de dotation yi war a jóge ci état bi. Ah, ñi koy jooy bari na. egseegul euh, donc loolu ak ñun lu ñu am am volonté. tant que y a pas cette volonté de la part de l'État d'accompagner les collectivités li mu war a joxtante ak ñoom ñu koy def donc je pense que ne dafay indi blocage moo tax aujourd'hui mais malgré ces difficultés on essaie de trouver des solutions man je me suis dit que il fallait ñu am ouverture dem euh, vers les partenaires extérieurs mhm. euh, dem à l'étranger bi ma toogee léegi dem naa fi o Kenya dem naa fi au Maroc c'était toujours dans le but de rechercher des partenaires am ouverture dans le cadre de la de décentralisée aw ma yooyu li nga xamante nag dinaa ko jooy mooy ma nekk commune boo xamante ni commune industrielle la sama commune am na pratiquement quarante de industries malheureusement -hmm. malheureusement sentiruñu impact social lu présence su entreprise yooyu si localité bi. ci naka da nga bàyyi mu jàll wala da di seetaan nii waaw waaw xam nga dafa am euh, li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, taxe bu ñuy wax sel muy CLVA ak CEL valeur locative mais yooyu dañ koy percevoir jëmale ko ville bu ko ville jotee ensuite dañ koy répartir entre les communes mais si répartition bi injustice bi mooy commune bi ko abrité duñ ko tenir en compte dañ koy répartir en fonction population bi tey commune bu mel ni Djida Thiaroye Kaw bu mel ni jàmm Diamaguène ñoo ma ëpp population. Mhm. samay entreprise li ñuy joxe ñoom ñoo ma ci ëppale. li si des mooy dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises tey loolu lu ñuy jooy la parce que loi bi ni ñu ko tëralee dañ ko def de telle sorte que ne le principe est affirmé mais amul benn contrainte boo xamante ni buñ ko deful du kii li si des mooy négociation moo tax ñun on essaie de mettre en place euh, benn cadre de concertation ak les entreprises pour pouvoir euh, rendre. véritablement efficace loolu nga xamante ni mooy responsabilité sociétale des entreprises. waaw parce que léeg-léeg euh, ñu ci bari communes yu ci bari dañ daan ñoom seen besoin ñiy def euh, entreprise yi yéen duñ leen ci fekk. bon ngeen ne li ngeen bëgg ñoom ñu def leneen est-ce que laata loolu waxtaan mënu ci am comme ça ñu xam bëgg-bëgg commune bi. Hmm. ñu daal di koy topp ci loolu laata muy jël initiative rek def loolu itam. waaw waaw loolu lu ñuy jooy la et ñun dans notre man li ma gëm mooy. entreprise yi ay citoyens laa leen jàppee parce que citoyen dafa am ñaari catégorie yenn ñi ay personnes physiques lañ ñenn ñi ay personnes morales la bépp entreprise boo xamante ni sa siège dafa nekk suñu commune suñu citoyen nga et par conséquent démarche bi ma jël bi ma ñëwee mooy j'ai contacté toutes les chefs d'entreprise euh, ne leen dañu bëggoon def visite de courtoisie et si visite de courtoisie bi suñ demee li ñu lay wax ma ne man duma dem si entreprise di ko ñaan ku may xaar foofu doom a gis li ma gëm mooy il faut que mu am un partenariat gagnant-gagnant moo tax dama demarche démarche li ma def mooy ku ma ci rencontre je vous lan mooy sa ay préoccupation nga wax ma sa ay préoccupation ma suñu biir commune en contrepartie bëgguma nga may jox xaalis bugguma ngay def leneen li ma gën mooy euh, jeunes Thiaroye yi bu ñu mënee euh, ñu favoriser leen par rapport ak recrutement mais également suñuy projet ñu sentir que ne yéen da ngeen ciy dugal seen xaalis mën na bañ a jaar sax ci maire parce que du loolu moo am solo donc si loolu la ñuy jéem a tabax ba li ñu gëm mooy on et en train de travailler pour la mise en place d'un cadre de concertation ak les entreprises de la place et à partir de ce de concertation dinañu partager ensemble sunu ay préoccupations les préoccupations des de la commune les préoccupations des entreprises pour ensemble ñu ñu fajandoo sax mais est-ce que problème boobu tey li gën jël ko teg ko. ci ville euh, waxtaanee ko foofu itam ñoom ku ci nekk xam si sa pàcc de euh, part de responsabilité loolu itam lu gën la itam. waaw man xam nga déjà conseil municipal la ville de Pikine hmm. donc loolu je rassurez-vous maa ngi rassurer population yi que ne dinañ ko porter mais ville du ñu am lu bari lu koy reprocher parce que. ñoom ni nga xamante ni moom la ñuy def taxe bi c'est à la limite je pense que ne assemblée nationale la loi moom moo injuste de ce de de ce. est-ce que jotul ñu jubbanti ko kon. voilà moo tax tey aujourd'hui je demande aux députés. de Yewwi Askan Wi de l'intercoalition bi nga xamante ni ñun on bat battu pour ñu mën a falu que préoccupation yooyu ñu jëlal ñu ko en charge il faudrait que ñu def de telle sorte que ne la loi puisse être révisée si point boobu ne et je pense que ne buñ ko defee ce aux communes yi xamante ni c'est des communes à vocation industrielle. ku ne caaro itam maître El jaay Ndiaye moom mooy sunu gan mooy maire bu caaro euh, yi mer ku ne caaro itam ne napp euh, tey napp gi. foofu ci diwaanu caaro yi est-ce que découragé wul ndaw ñi léegi. waaw loolu je pense que ne boo gisee Caaroy bu ñu koy tudd lu ci bëri si immigration clandestine lañ koy tudd mm-hmm. Mm-hmm. parce que dafa nekkoon dëkk boo xamante ni ñu fekkee démb ak bërki démb xam nañ ne Caaroy dëkk bu amoon koom la dëkk bu naatoon la parce que dañ fa doon def li nga xamante ni mooy agriculture doon fa def li nga xamante ni moom mooy pêche depuis la loi 64 46 bi nga xamante dafa créer domaine national nit ñi dañu perte seen ay suuf ñu def ay entreprise côté gi ak concurrence industrielle yi wi dafa gën a raar loolu moo tax doomu caaro yu si bëri tenté immigration clandestine mais ñu fi des ñun on s'est ne en tant que municipalité bien que la pêche nekkul une compétence boo xamante ni transféré la ñun mënuñu bañ a agir par rapport à la pêche moo tax on a fait un projet boo xamante ni huit cent et millions la pour euh, promouvoir la pêche artisanale de façon durable ñu ngi koy def en relation ak les organisations de pêcheurs d'ailleurs demoon naa fi Maroc fi nga xamante ni moom mooy Safi et dans le cadre festival des mers boobu dëkk yi nga xamante ne ay dëkk côtière lañ loolu moom ma fa yóbbu woon am nañ fa ay contacts mais surtout pour trouver ñoo xamante ni dinañu financer sunu projet boobu nga xam ne am nañ ko en relation ak des pêcheurs parce que aujourd'hui leneen li ma bëgg a rek mooy autorités à ce que dans leurs actions dans leurs actes yi nga xamante ni dañ koy def jëmale ko ci géej gi nañu sóoraale am na des populations yoo xamante ni géej la ñuy dundee tey li nga xamante ni dal na suñ pêcheurs yi je pense que ne c'est très difficile mooy que ne le produit est de plus en plus rare Euh, pêcheurs yi am ñoom dañ ne dañuy dem géej duñu gis jën la moo tax muy moo moo leen di encourager pour ñuy dem ci biti réew ak gaal mais c'est exactement ça et ça pense que ne c'est des préoccupations yoo xamante ni état daf ko war a jël en charge parce que un pêcheur boo xamante ni gaal bu bu looco yi lañ yor mënuñu concurrence ak ki nga xamante ni dafa yor bateau beneen bi mooy Sénégal mu ngi dem si li nga xamante ni mooy exploitation pétrole et installation yëpp si biir géej lañ nekk et installation yooyu bu ñu commencé opérationnel jën yi dañuy gën daw daw maintenant le défi bi nga xam ne état da ko war a relever mooy naka la ñuy def ba. Euh, du point de vue modernisation suñu pêcheurs yi nga xamante ni dañu nekk toujours dans une situation bu xaw a archaïque ñu ñu ñu ñu jàppale leen ba ñu mën a jóg un peu et sa moi je pense que ne état moo ko war a jël en charge il faudrait que mu jël see responsabilité par rapport à sa parce que mënuñu régler problème créer beneen problème boo xamante ni ce sera toujours à la base. dégg nañ fii dalal naa fi fii maire bu Toubacouta moom jàpp na ni immigration bi dafa am ay projets yi nga xam ni moom la teg. ngir xaw a mel ni kuy décroiser loo jeunes yi pour ñu dem mais fii dafa mel ni contexte caaro bi ak yeneen dëkk yi du benn ñiy nappkat lañ ay nappkat yuy xëy di dem. Mhm. est-ce que yow am nga ci benn projet bi nga xam ni mun na décourager loo ndam ñu mën leen toogloo ci commune bi. Mhm. mën a am xëy foofu itam mën a suturloowu loolu lu am solo la. waaw loolu laay wax ma ne daf dul xaj si jotaay bi ñun on a on a fait benn projet boo xamante ni. huit cent cinquante millions de francs moom moo koy financé. Euh, projet bi dafay jël en compte le pêcheur dafay jël en compte mareyeur bi dafay jël en compte femme baana baana bi dafay jël en compte transforma ñi nga xam ne dañuy def transformation. Mhm. c'est pour effectivement booster renforcer le secteur de la pêche loolu am nañu projet et dañoo gëm ne caaro yi une fois que ñu am loolu noonu en tout cas immigration bi côté ñi nga xam ne dañu doon bàyyi géej di dem di tukki dinañu gën a dëju sur place et incha allah loolu dafay nekk loo xamante ni euh, daf ñuy yokk parce que man gëmuma ne fi nga xamante ni dañu fi toll population bi gën a active muy les jeunes dañ leen war a bàyyi ñu dem à l'étranger mmh. on doit créer les conditions pour ñu toog ci dëkk bi participer à la croissance et au développement de ce pays et loolu tant que amul des initiatives yoo xamante ni état moom moo koy porté du mën a dem. Mhm. Euh, ku ne caaro itam dëkkuwaay bi dëkkuwaay itam nekk lu am solo mais comme benn village la boo xam ne ñëpp a fa bokk nekk. Mhm. ndax monsieur le maire itam mu ngi envisager waxtaan xool euh, création cité ba xam est am ngeen espace sax mun a xalaat li ni mel. Euh, ñun amuñu amuñu amuñu espace mais toujours di wax rek ñun malheureusement dañu nekk ci. Euh, benn situation d' injustice. Mm. par rapport ak projet B de Hann Birane je pense que ne. daf leen indil gàllankoor de. projet bi moom kenn xamul. dina dem du dem voilà. waaye c' est un projet boo xam ne malheureusement booy xool li ci ëpp si installation yi caaroy géej la nekk Birane bi ñu ñëwee li ñu wax mu ne euh, dëkk yi nga xamante ni daf fay jaar muy Yaraax muy Mbaaw muy caaroy sur mer euh, dafa am un des projets de restructuration mooy dëkk bi nan la ñuy jooyantalee créer ay mbedd à notre grande surprise ñu gis que ni def nañ ko à Yaraax. nañ ko à Caaroy bi nga xamante ni moom mooy euh, je pense que ne euh, projet bi foofu la en réalité muy une situation d'injustice boo xamante ni sama commune dund na ko et dire encore une fois que amul lenn loo xamante ni moo koy justifier parce que encore une fois euh, li ñu namm ci projet bi mooy dépollution baie de Hann bi mënul effectif tant que ñu ngi continuer di tuur mbalit ci biir géej tey caaro yi dañuy tuur seen mbalit ci biir géej parce que tout simplement amuñu yoon yoo xamante ni ñoo leen koy évacuer donc pour dire encore une fois bu fekkente ni le projet li ñuy wax moo ko tax a jóg il faudrait impérativement ñu def li nga xamante ni mooy la restructuration там waaw ñu ngi ciy ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy dox ak ñi nga xamante ni ñoo seq projet bi ba aujourd'hui à Thiaroye dafa am li nga xamante ni mooy collectif des acteurs bi regrouper la mairie les mouvements associative les organisations traditionnelles li ñuy xeex di ko dox mooy naka la ñuy def ba caaro Thiaroye am une restructuration et man si collectif boobu dama ci bokkoon sax avant maa nekk maire donc dama continuer di porter le combat pour la restructuration de Thiaroye sur Mer. Mm-hmm. Euh, lu war la non en fait euh, bu amul c'est une injustice parce que lan la ñuy justifier aujourd'hui une partie de Yaraax soit restructurée une partie de Mbao soit restructurée ñu bàyyi Thiaroye sur Mer amul lenn loo xamante ni daf koy euh, franchement justifier moo tax ñun on se dit que il faudrait que sunuy autorité li nga xamante ne dañ koy def ñu si jiital justice sociale parce que buñ defoon étude impact environnemental boo xamante ni bu sérieuse la je pense que ne les préoccupations de thiaroye sur doon na dugg si biir projet bi mhm. et malheureusement pas par quelle alchimie ils ont ils ont fait dans quelles conditions ils ont fait mais ñun am nañ ci des réserves man personnellement j'ai j'ai mis des réserves par rapport à la fiabilité des des études impact environnemental yi présidé à au projet BDA. Mhm. projet BDA mais wax ci entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci yenn communes yi itam. Mhm. di indi ay gàllankoor ci li nga xam ne moom moo jëm ci code bi jëm ci wàllum alam bi euh, dégg nañ ci rek démb ñi nga xam ne ñoo di askanu Kayar. Euh, li ni mel amu fa caaro yi wala. ca caaro yi euh, caaro yi ñun dañu am benn problème et je pense que ni fi ak fan yi di ñëw dinañu ci dégg ñu wax ci muy Shenchim. ku nekk am na les industries chimiques du Sénégal benn entreprise la bu installé aussi commune bi di produire li nga xamante ni moom mooy engrais chimique tooke Euh, à Thiaroye y a un collectif les riverains dañu constaté benn moment que ne dafa am des feebar yu bizarre yoo xamante ne day dal population ñu bëri faatu si mais bi ñu ko gëstoo ba gëstu dañu jàpp dañu gis que ne c'est les produits yi nga xamante ni si moo koy produire ñu ciy dox di ci dox ba à l'époque du président Abdoulaye Wade boobu le euh, Djibo Ka moo nekkoon le ministre de l'environnement il avait pris un arrêté disant que ne nañu arrêté immédiatement toute activité dans l'entreprise ñu délocaliser ko mais ñu ñu ñu ñu ñu désintoxiquer site bi mm-hmm. boobaak léegi ils l'ont pas ñu ngi continuer arrêté nañ production bi mais dañu continuer di def stockage ci biir ci biir site bi ñun nag en tant que commune on va prendre nos responsabilités dinañ ko dindi par A wala dinañ ko dindi par B en tout cas moi je suis prêt à porter au nom de la commune le combat pour que ñun ak si ñu dem tribunal tribunal àtte ñu parce que l'administration mënul jël une décision jox la injonction nga continuer passer outre à cette injonction ces de ces recommandations di def lu nga xamante ni lu la neex la te li si juddu yëpp si population beneen bi mooy aussi bien seen euh, Senchim que industrie bi ñuy wax SAR euh, mu nekk si beneen commune jaarale ay pipeline am biir caaro yi pipeline yooyu ah, nag sonal nañu trop parce que doo toog deux semaines yoo xamante ni déggu la am na li ci gën a grave mooy fuite bu amee ñoom euh, li ñuy def dañuy ñëw baliser ils vont rester pendant pratiquement deux ou trois semaines pour doog a jël les dispositions mais li si gën a ñaaw mooy dañuy ñëw recenser les populations impactées di leen jox ay ceeb ak ay diwlin ñun on se dit que ne Thiaroye xiifuñu il faudrait que ñu respecter davantage les populations euh, am de l'égard ci seen côté beneen bi tamit mooy que ne mënuloo di jural population bi jafe-jafe yu mel noonu te doo participer sur le plan responsabilité sociétale on les remercie de passage parce que ren may ñu benn moto pompe mais mois je me dis que ne le problème de Thiaroye nekkul moto pompe man moto pompe itam en tant que SAR benn benn moto pompe jox nañu ko ak bon d'essence dañ parce que mënoon na leen si bañ a fekk mais ñun li ñu leen di oowee li nga xamante ni moom mooy seen warugar il faudrait que SAR jàpp ci li nga xamante ni moom mooy investissement yi ñu war a def Thiaroye sur Mer tant que mu ngi am ay pipeline am yoo xam ne dañuy jaar biir Thiaroye euh, en attendant ñu def le projet jaarale ko biir géej comme ni ñu ko waxee. mais est-ce que kon situation bi nga xam ni moo nekk ci diwaanu Hann bel est-ce que nekkul situation boobu moo leen yott. oui oui en fait euh, c'est ça c'est ça le malheur parce que ñun ak Hann bel ñoo bokk problème bi te euh, Sarr nekkul Hann Bel-Air nekkul Thiaroye-sur-Mer mu ngi bokk ci commune Diamaguène si Mbao lépp lu nga xamante ni ñu ngi koy def seen commune de rattachement lañ koy def alors que ñun ñoo ci sonn moo tax aujourd'hui c'est des questions yoo xamante ni. état moo ko war a jël en charge il faut que ñu respecter les populations le truc de SAR là ay fuite yu ndaw la ñuy am mais imaginez la bu amee catastrophe Euh, risque d'explosion par rapport ak pipeline boobu noonu mais c'est tout la région de Cap-Vert qui est menacée aujourd'hui pour man un état sérieux dans un état sérieux euh, problème yu mel noonu dañ ko war a jël à bras le corps trouver une solution définitive il est inconsevable que sar continue di dëkk ak population yi nii fuitif yi de à gauche à droite nañu régler sa problème définitivement et que ñoom ñu xam ni c'est des entreprises ñu assumer les responsabilités en tant que entreprise envers les populations. monsieur le maire su ma la dégg dafa mel ni da nga sol euh, robu avocat maître bi nga doon di ko dem di xeexalee sax sa commune maanaam fépp dërëm commune bu ne fu nga ko war a dem jëli. yow dafa mel ni da nga koy dem jëli doo ci xaar dara. wax mais xam nga loolu mooy li nga xamante ni sunu sunu responsabilité d'abord sunu conscience moo ñu dul may euh, sunu population di subir une injustice en tant que citoyen simple en tant que avocat ñu bañ ci wax ñu bañ ci dox parce que ñun euh, à la base on est défenseur de la veuve et de l'orphelin aujourd'hui quand on est maire on est toujours dans cette posture de combattre de nous battre pour les intérêts de nos populations je pense que ne man euh, ci loolu laa nekkoon avant ma nekk maire si laa nekk bu ma nekkee maire et allah bu ma fi jógee tamit je continuerai ce combat parce que dama bëgg a jox sama sama sama dund li nga xamante ni mooy sama population. mais est-ce que loolu am nga ci jàppandalu euh, askanu caaro yi. parce que itam ngay xeex te amoo ci jàppandalu askan wi. Mm. Mm. loolu des fois dafay indi gàllankoor tuuti. waaw waaw xam nga tey man euh, aujourd'hui je peux ma peux me considérer comme un maire bu heureux. parce que population en tout cas Thiaroye yi gis naa ne bépp action bu ma entreprendre gis naa ne population yi ñu ngi suivre et ñi dul suivre sax il suffit que ñu comprendre enjeu bi comprendre li ñu leen di expliquer dañuy ñëw rejoindre ñu ci combat boobu noonu récemment ak euh, mool yi y des agitations bi géej gi avancé mais bi ñu ñëwee toog ak ñun on a discuté et on porte ensemble les projets yi nga xamante ni moo jëm ci wàll géej donc je lance encore une fois un appel à des populations ñu gën a jege les mairies comprendre que ne li nga xamante ni porte nañ ko ay combat du pour suñu combat personnel mais c'est pour l'intérêt des populations. Ah. conseil de quartier option la ci yow. waaw waxtaan ak ñoom wala waaw man dama def euh, li nga xamante ni. mooy gouvernance euh, euh, ñu ngi ciy travailler pour mettre en place d' abord li nga xamante ni mooy les conseils de quartier mettre en place benn cadre de concertation yoo xamante ni day dajale les conseils yëpp mais mettre li nga xamante ni moom mooy budget participatif ñu ngi ciy travail et le moment venu euh, président commission bi war na def ay conclusions mais li ñuy def mooy les conseil de quartier dañuy dox dinañ def cadre de concertation à l'échelle communale mais surtout dinañ def lii di budget participatif et man en tant que maire je périodiquement face aux populations pour Euh, rendre leen compte fi nga xamante ni fi laa toll si liggéey bi. est que mën nañ xaar ay trois mois wala quatre mois bu nekk nga taxaw wax leen nii de liggéey bi fii lañ toll fii voilà yii lañ toll yii lañ def parce que itam noppi gi cell gi. Euh, dafay xaw a jaaxal. ñu bari nag. waaw non en fait euh, moi je l'ai prévu que ne bu ñu demee ba fin d'année. Eh, dinaa def li nga xamante ni moom mooy fas aux population au bépp waa Thiaroye yi wax leen li ngeen ma dénkoon lii ak lii laa ci def et eh, déglu leen si seen ay questions si seen ay critiques jël en compte par rapport ak loolu. Mm. Eh, suma sañoon tamit dinañ ko def périodiquement tous les six mois du ma ne nekk tous les trois mois. parce que mm. doo am contenu doo am matière. mais une deux fois dans l'année incha allah dinañ bëgg nañ ko def en tout cas loolu moom mooy suñu yéene. Mm-hmm. fan nga toll ci réflexion wala reconstruction yi nga xam ni moom moo di marché yi. yi wala ay projet la yi nga xam ni mu ngi sa kanam. waaw marché yi dama dama dama ko def priorité parce que je me dis que ne le marché de Thiaroye état bi nga xamante ni nekk na fa euh, gën a ñu màgget na donc mais on a mesuré def nañu le projet def nañ les études. en tout cas on a discuté ak un privé malheureusement on n'est pas tombé d'accord ñu ngi continuer discussion ak yeneen privé pour ñu jëlal ñu en question la réflexion def ko benn marché bu moderne la vu que c'est un marché boo xamante ni dafa placé wu sur la route nationale <laughs> je pense que ne ñu ngi ci ñu ngi également en discussion pour euh, def li nga xamante ni moom mooy centre commercial à Thiaroye Azur donc dama ci dul mëna sori parce que amaguñu loo xamante ni lu ñu d'accord la mais c' est des choses yoo xamante ni jël nañ ko en compte ñu ngi ciy avancé bu baax. ok euh, génn dam jóge Caaroy dem Pikine di football bien vrai que fa ngeen bokk. Mhm. waaye itam est ce que benn bërëb boo xam ne pour ndaw ñi la stade. Mhm. Euh, mu ngi say projet. bokk na ci projet yi nga xamante ni nourrir nañ ko maintenant aujourd'hui difficulté bi ñu am. mooy euh, problème d' espace. moo tax dama sama rencontre ak la SAR j'ai de discuter ak ñoom parce que ñoom am nañ terrain boo xamante ne mu ngi ci biir commune bi nekk ci biir cité SAR discuter ak ñoom dans quelle mesure lañ ko mën a transformer stade municipal. malheureusement ils ont émis des réserves par rapport ak activité yi ñu fa bëri a développé muy navétane mais ñun on considère aujourd'hui que ne cet espace sa destination bi gën a pertinente pour population yi euh, bénéficier mooy man en tout cas je vais continuer ak ñoom ci lancé boobu mais bu dul loolu dina jafe trop ñu am. espace est-ce que nga nekk ci beneen boor bi parce que ku ne saar ne nguur euh, jéem a takk sa biir tuuti. <laughs> waaw waaw waaw xam nga loolu nag euh, doxalinu réew dañ ko ci war a génne parce que man opposition laa bokk te dara mënuma jëlee opposition mais je suis conscient que ni dans un état organisé il y a l'État il y a les collectivités qui sont des démembrements de l'État dafa am des relations. relation yoo xamante ni war nañ ko tisser et ces relation moo ñuy permettre en tout cas il faut que ñu ñu am grandeur am élégance mhm. pour mën a nekk ci normes yi man ci loolu laa nekk et puis awma awma limite awma frontière je travaille ak la ville de Pikine je suis disposé à travailler ak toutes les structures de l'État maitre El Mamadou Ndiaye mooy maire bu commune bu thiaroye sur maire moom la ñuy dalal ci émission gox bi waxtaan tuuti laata émission bi di yéex parti politique euh, coalition Yewwi Askan Wi nga bokk génn nañ ci élection législative euh, daanaka gouvernement bi am na majorité waaye benn la leen ëppale 82 ngeen am ñoom ñu am 83 euh, évaluation élection yi daanaka fan ngeen ci toll wala yéen ci commune ba. Euh, yan évaluation ngeen def ndax dafa mel ni la ngeen fa wuti woon député yi nga xam ni war na génn si seen commune euh, wala seen euh, ci Pikine yéen a ko gagné yéen waa Yewwi Askan Wi wàllu waa c'est le moment de féliciter encore une fois tous les camarades yi ñu nekkaloon ci campagne bi parce que yàlla def na tey am na ñu ndam du ma ne tey le pouvoir am na majorité parce que ni may ah, jàng benn la itam leen ko rek may ni may jàngatee parce que ñi demoon élection ñaar la mooy ñi nga xamante ni ils sont du pouvoir ak ñi nga xamante ni ils sont de l'opposition et donc euh, kenn rek moo nekkoon du pouvoir li ñuy bëri bëri muy euh, la liste de benn Bokk Yaakaar tey boo xoolee li ñu am ak li opposition bi am l'opposition est largement ma et majoritaire du ma wax largement est majoritaire à l'Assemblée nationale mm-hmm. muy une situation inédite et malheureusement donc euh, ils sont en train de faire li nga xamante ni moom ñoom loolu la ñu xam pour renverser cette majorité mais je pense que ça ne passera pas et aujourd'hui on a la chance d'avoir à l'Assemblée nationale ay forces yoo xamante ni du point de vue équilibre xaw nañ dooloo doole et donc je pense que ne loolu mooy indi vitalité démocratie loolu mooy tax Assemblée nationale jouer son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. est-ce que dina yomb ba tey njiitu réew mi moo fi nekk ah. waaw mais mais bu fi nekkee bu nga dans un pays moo bon. mooy li ñu doon gis démb ak bërki démb que sur euh, cent cinquante députés les cent et quelques vous que man député président Macky Sall la loolu je pense que ne au sorti des résultats la wane na ne am nañ député yoo xamante ni ils sont là pour le peuple ils sont là pour le Sénégal ils vont pouvoir contrôler véritablement l'Assemblée nationale ils vont pouvoir entreprendre les réformes yi nga xamante ni tey dafay jëmale dëkk bi kanam et on s'en félicite pour la démocratie sénégalaise. ok au-delà de coalition Yewwi Askan yooyu itam taxawu nga bokk dafa mel ni ci coalition bi itam bu ñu xoolee gañe ngeen si ci li nga xam ne la tax ngeen moo xam ni ngeen sóobu si ndax ci nga nekk maire am sa yeneen collègue yi nga xam ni tey nekk nañ député nekk nañ maire donc dafa mel ni coalition bi yéen itam euh, gis ngeen ci seen bopp. waaw coalition bi de je pense que ne damay wax ne Sénégal moo ci war a gis boppam euh, en tout cas ñun taxawu Sénégal euh, coalition bi dañu jàpp que ne sunu coalition la. parce que ki nga xamante ni mooy sunu leader muy Khalifa Ababacar Sall tey coalition bu demee ba taxaw taxawaayam dafa am rôle bu bëri bu ci joué moo tax ñun en tant que taxawu Sénégal on est dans cette coalition on se retrouve dans cette coalition et dañuy sant yàlla pour remercier également nos leaders d'avoir euh, bien vu mais également am benn esprit dépassement parce que lu ne jaar na fi pour affaiblir la coalition ils ont su résister ba am li nga xamante ni moom mooy résultat yi nga xamante ni am nañ ko ñun en tout cas ak taxawu Sénégal on est fier d'appartenir à cette coalition on est fier du travail abattu par Khalifa Ababacar Sall pour que coalition mën a am see résultats la ah, waaw ñuy dem ci élection présidentielle. Mhm. atum 2024 dégg nga Ousmane Sonko nee na moom candidat la. Mhm. Euh, seen njiit yéen itam candidat lay doon. waa xalifa xam nga bien avant sax euh, lii nii débat bu mujj bi moom waxoon na euh, ne dafa bëgg doon candidat dina doon candidat en 2024. loolu mooy gëm-gëm bi nga xamante ni man dama ko am ñi may àndal si taxaw Sénégal dañ ko am li si des on va travailler pour que xalifa Sall nekk le président en 2024 ah président en 2024 boo xam ne euh, li jëm ci wàllum casier yeeg euh, faaw ñu defal ko amnistie pour mu mën a nekk candidat su dul loolu naka lay mën a nekkee candidat waaw ni muy mën a nekkee candidat mën na en fait euh, dafa am loo xamante ni ah, fii xam-xamu avocat bi <laughs> waaw dafa am loo xamante ni man en tant que avocat duma ko comprendre mooy comment on est arrivé à une situation pour dire que Khalifa Sall il a perdu ses droits civiques et politiques gis nga moi j'étais un acteur de ce procès en 2019 rien du tout ne s'opposait à la candidature de Khalifa Sall parce que le dossier était toujours pendant à la cour à la cour suprême par la force des choses ak euh, volonté pouvoir pour l'empêcher ils ont réussi à le faire aujourd'hui ils le maintiennent dans cette situation am na léegi lu nit ñi comprendre mooy que xalifa Sall dañu jékki-jékki benn moment gisatuñ turam ci li nga xamante ni mooy liste électorale yi te yoon dafa ne gis nga nit même bu amee une condamnation même boo koy génne ci liste électorale danga koy notifier Khalifa n'a jamais reçu une décision bu génnee turam ci liste électorale yi donc pour dire que ils ont toujours fait di forcing pour empêcher à l'homme Khalifa Sall de de de participer tey li ko téye mooy que ne dañu jàpp que ne nekkul électeur mënul participer ci élection yi mais moi je dis que gis nga gis nga obstacle boobu noonu élection locale la yam ak élection législative et ça je le di en tant que on te di pour être candidat à l'élection législative ak locale il faut que nga nga nga nga nekk inscrire ci liste électorale yi. Mhm. ba pare dem mais loolu amul pré présidentiel. à la présidentielle on vous di pas que ne da nga war a inscrire pour mën a euh, nekk candidat donc obstacle bi empêché Khalifa nañ ko seeti ci leneen aujourd'hui ñi nga xamante ni euh, ils sont plus optimistes ils vous diront pas sax du question amnistie nañu modifier la loi bi nga xamante ni mooy article vingt sept ou trente deux de la constitution pour mën ko permettre de du code électoral. Mhm. et pour man. le combat bi nga xamante ni nos députés dañ ko war a am c'est d'empêcher euh, de de supprimer définitivement cet obstacle non pas pour Khalifa Sall nompa pour Karim mais pour bépp acteur politique boo xamante ni gars yi mën nañ jafandu foofu pour empêcher la ñun on est optimiste quant à la participation de xalifa euh, en deux mille vingt quatre d' autant plus que man je suis convaincu que contexte bi nga xamante ni Sénégal daf ci nekk ci politique nous avons besoin d' un homme comme Khalifa Sall. est ce que am ngeen appareil bu leen mën a yóbbu ci élection yooyu vrai que taxaw dëgg la naam euh, mi ngi commencé di màgg mais est ce que dans les quarante six départements ak diaspora am na base solide bi nga xam ni appareil bi nga xam ni war na mën a yóbbu Khalifa Sall. waaw ñun on a on a la chance ou la malchance. d'être un, un mouvement politique boo xamante ni ñun ñëpp on a été façonné à l'image de Khalifa Sall mooy on travaille sans faire de bruit demuloo département ci biir Sénégal boo xam ne taxaw amu fa kon nous sommes présents sur toute l'étendue di di territoire maintenant li ci des nag c'est un travail de base ñenn ñi mën nañ jàpp que ne seen travail politique mooy ñu nekk dans les médias ñenn ñi nekk dans les réseaux sociaux mais sunu option d'abord mooy ñu implanté et ku nekk na xam na ne xalifa Sall parti ba mu jóge muy PS parti bu amoon euh, euh, mutulu dayo la et que mu ngi ci Sénégal yëpp Khalifa du woon n'importe qui dans le PS donc à l'image du parti socialiste Khalifa est présent dans tous les Sénégal et mu ñëwaat ci pertinence sa candidature loolu laa doon expliquer mu mhm. ne ñun dañu dugg dañu génn ci une décennie boo xamante ni les Sénégalais tey ils sont divisés da ngay dégg tey euh, luñ fi daawul dégg buy saper la nation l'unité de la nation sénégalaise des fois di fi dégg débat si waaso des fois di ci dégg débat nit si localité bii la dëkk wala fii la des fois di ci dégg affaire diine loolu pour man dañu soxla président rassembleur et cet homme rassembleur dafa war a nekk koo xamante ni am na vécu bi am na expérience le président bi ñu soxla pour juboolewaat Sénégalais yi pour renforcer waat l'unité nationale je pense que ne c'est le profil bi ñu am mooy le candidat Khalifa Sall. vous pensez que Khalifa Sall est le meilleur profil parmi ñi nekk fii. waaw meilleur ça dépend li ñuy mettre en avant mais moi di suñu dëkk fi nga xamante ni moom la toll contexte bi ñu toll on a besoin d'un profil rassembleur. et tous les acteurs politiques au Sénégal sont unanimes pour dire que xalifa Sall est un rassembleur Khalifa Sall n'est pas xalifa Khalifa néppa n'est pas koo xamante ni dina def réglement de compte parce que c'est un euh, c'est le risque bi nga xamante ni on l'encourt mooy que ni ñu dugg ci cycle boo xam ne président bu ñëw ko Macky Sall nii mu def day topp Karim pour dóor ko parce que papay Karim Wade am na lu mu ko defoon donc pour man aujourd'hui ki am esprit dépassement boobu mooy Khalifa Ababacar Sall mhm. tey ñu nekk ci situation bi nga xam ni ñu ngi xaar installation assemblée nationale ñu ngi xaar itam gouvernement bu bees ñu ngi xaar itam laata loolu premier ministre dafa mel ni euh, dara bougé wu la waaw xam nga xam nga dañu nekk si gis nga booy booy booy fawee sa xel des fois da ngay dem ba mu dugal la si guta on nous a chanté que ne poste premier ministre bi dañ ko war a supprimer et ñu def procédure accélérée. pour wane que ne urgence la dañ ko war a exp euh, kii ñu ñu supprimer ko defaluñ ñu premier ministre. donc ils ont. ñu fast track indiwaat ñu fast track ne non dañu soxla urgence poste premier ministre ñu vote ko indiluñ ñu ko aujourd'hui la balle est dans leur camp l'essentiel mooy que. le président li ñuy xaar si moom mooy li ma doon wax jamono procès Khalifa Sall le président de la République il doit rester au-dessus de la mêlée boo nekkee président pendant douze ans war nga am hauteur nga jiital ci li ngay def li nga xamante ni moom mooy intérêt Sénégal et cet intérêt de Sénégal bu fekkente ni président moom lay doxal mois je sais que ne cette opposition là opposition bu bëgg Sénégal la nañu dem ci loolu na nommé premier ministre nommé gouvernement ñu doxal tout en sachant que ne à partir de maintenant rien ne sera comme avant parce qu'on a une opposition parlementaire boo xamante ni pare na pour assumer entièrement son rôle. gouvernement d'ouverture pare ngeen pour dugg ci yéen waa Yewwi bon loolu gisuma ba en tout cas pour me concernant gisuma ne débat la à Yewwi gisuma ne débat la donc par conséquent mënuma ci mhm. prononcer wu ils ont ils, euh, ils, ils affirment avoir gagné et pouvoir gouverner de toute façon moi je suis dans l'opposition je reste dans l'opposition ñetteelu mandat bi itam ñu ngi koy laam-laamee ci booram euh, dina ko def ak du ko def euh, avocat nga itam mhm. waaye om politique nga mhm. lal moo ci sa xalaat xam nga cette question warul sax am sa raison d'être dans ce Sénégal la parce que boo xoolee interroger histoire mooy que on avait dit que Senghor a fait vingt ans Abdou Diouf a fait vingt ans maintenant plus personne ne devra faire vingt ans wala lu topp ñu ne lan mooy solution bi nañu limiter mandat yi à deux ci biir limitation yi en 2016 le président voté réviser la constitution Et dans la Constitution, il est dit que peut, être élu plus de deux fois. donc nul moom boo koy wax ci olof mooy mbindeef warul mën a amati ci Sénégal fi ñaari mandat yoo xamante ni yu teg loola donc pour man loolu dafa clair et limpide ku koy liir da ngay xam ne lii moom mooy dëgg et bu ñu nee mbindeef bàyyiwul la président Macky Sall parce que mbindeef la sénégalais la donc moom ci boppam mu dellu ne man mii bii mooy sama deuxième mandat lan moo fi war a mën a tey indi sa débat là. bu defee leneen moom la neex. bu defee leneen moom la neex. mais il doit pouvoir comprendre que moom Abdoulaye Wade moom ëppul dayo Abdoulaye Wade ëppul affection sénégalais yi affection bi ñu am ci Abdoulaye Wade amuñ ko ci moom lu ñu mayul Abdoulaye Wade duñ ko ko may. donc na am sagesse na am grandeur xam ne nguur bu jeexee rek jeex na. damu mhm. comprendre que ne fii ni ko sama gars yi waxee troisième mandat du fi amee. par A ou dañ ko fiy tere dañ ko fiy tere. <laughs> El Mamadou Ndiaye en tout cas ñun am nañ mbégte lool tey dalal la ci émission gox bi ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax di fàttali ne yow yaay maire Thiaroye-sur-Mer ñu bàyyi la nga tàggoog ak euh, mbokk auditeurs yi. voilà merci beaucoup Traoré maa ngi. Dramé même Dramé waaw di di fësal bu baax sama mbégte di la remercier par rapport ak dalal bi par rapport ak euh, euh, pertinence question yi di wax ne am nañ bu baax mbégte yi ñëw ci rajo bi nga xamante ni mooy réew mi FM muy sunu rajo et je pense que ne liggéey bi ngeen def euh, ñun en tout cas doylu nañ ko te gis nañ que ne c'est une rajo véritablement boo xamante ni dafa nekk pour day uyoo turam mooy réew mi jërëjëf merci beaucoup ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax gërëm ki nga xam ni moom moo di ci xarale gi jox leen dig daje euh, beneen dimanche ak beneen invité incha allah rabbi